an rahim barke borom Touba bokk yi ñuy seetaan ci site bi info ak istikhama point fu ñu mën a nekk ci biir àdduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi jëwriñu yoon wi nekk di sëriñ Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan sun boroom gën ko fee yàggal lool te dolli ko ak wér di siyaare bu baax ak a ñaanal soxna Baali soxna Maymuna ak sëriñ Mouhamadul Mahfous ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di sëriñ Cheikh Abdul Ahad moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde faatma di siyaare soxna Aytu ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymuna yépp beral siyaar itam mbooleem taalibi yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di laylatul xadar ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mbooleem dong yépp mu di Basiiru Saar jaamu Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Sang nekkal ko fi bokk yi nag ñuy santaat borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoon ak yéen jataay bi bi mu ñu mayee ñu seq ko ak yéen ren jii wares na ko cee sant ndax jële na fi mbooloo mu bari moo yafus jëlewu leen fi ñim fi bàyyi ngóor bàyyiwu leen fi coobare borom bi rek la yàlla na ko soob mu gën feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Seexul Xadim xam ngeen ne nag te ne ji waxoon nañ leen ne danañ séq ak yéen jataay boo xam ne danañu male ci kanam at ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna may Maymuna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jànge ci ëttu Sëriñ Tuubaa te taree fi ñooñu ci sëriñ Mouhamadou Moutada Bousso sëriñ Iman sëriñ Alxaaji Njaay Sindi sëriñ Jaay Taal sëriñ Busra Sàmb ak sëriñ Basiru Ñaan waaye xam ngeen ne it feggoo nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne incha allahu danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdoul Ahad moo koy tëj waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee ba xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génn ci soxna Maymuna bay diggam ak boroomam subhaanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waaye dee nag fii ci àdduna te sun boroom waxatam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk ci kon seenub cër ci àdduna war ngeen koo seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale loolu taxawaay bi ci soxna a taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ko war a jox dëgg mooy soxna may Maymunatu Mbàkke bint Seexul Xadim kon dañuy bàyyi kàddu ak sëñ imaam ci biir ab nuyoom mu tàmbali ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imaam dana ko seq ak sëriñ Mourtala Bousso ak sëriñ Alxaaji Njaay Seex Ndindi bu ñu daaneelee xaajub ñaare bi sëriñ Busra Sàmb ak sëriñ Jajataal ak sëriñ Basiiru ñaan danañ ko seq kon ñoo ngi jox kàddu sëriñ imaam mu ñu daal ñuy defal nag li ci li ñuy wax ci jëmm ji di soxna may mën a Seexul Xaadim sëriñ imaam bisimilah. bismillah bismillahi lazi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala allahi kana alhuda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi zawina wa jashidan wa murshida fikrati nawir xal mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jotaay bu tedd bi jotaay bi nga xam ne jotaay tawféex la jotaay yokkute la waaye jotaay la li tax mu nekk jotaayub yéen tawfeex ko ku baax foofa sunu boroom dafay wàcc yërmandeem te tey ñu ngi fiy fàttaliku kenn ci féete sunu boroom yi saalihaat yi muy soxna may allahu anha jotaayub yokkute la ndax ñi nga xam ne ñooy ñi gën a ci seeni réew réew ñi gën a tudd ñaare boo demee ci seeni kàggu bibliothèque danga fekk mu fees dell ak i mbir ngi ko def ci seeni boroomi xam-xam seeni kàngaam rek seeni doom man ko xam ba tax mën a xam te ko xam sa bopp xam sa biir defe naa ne doom gani loo xam ne day mel ne da ñàkkal solo la nga am ndax xam nga ba noppi ku réeral sa bopp nag da gis ca loola mooy indi roy dàq roy dàq gu amul njariñ nag moo tax may wax kon jotaay dana ci bokk fàttaliku kenn ci ñi nga xam ne ñun ñoom lañu am ñuy leer te war leen a bu baax ñu ñëpp ñu war la xam jàngaleen tam suñuy njaboot kon am nañu lu ñu mën a sukkandikoo ba mën a yokk suñu réew waaye yokk itam suñu culture li tega mooy jotaay tey la am na ci ñoo xam ne ci féete suñu borom yi ku bokk ñoom jotaay danga nga texe ndax seeni jotaay kiñ fa texe di ñoom la sëriñ wax naan ulaa'ika xawmu laa yashqaa li is yokk si buunal murid damay faral di wax ne am na ci ñoo xam ne kuy fàttaliku ku leen di fàttaliku dafa mel ne dangaa jot ak ñoom ca ku jotaayoo ak ñoom nag dangay ngay di bokk ci ñooñee nga xam ne kon doo ci jëlee di mukk ak texe ak di xanaa texe rek nga cay jëlee soxna may mun a bokk ci di siyaara bu baax soxna Maymuna ci taay mu rafet waaye tam lépp loo xam ne soxna sëriñ soxna Maymuna doon na ko taxawee moom ba mu dikkee ak yokkate rek gën a firndeel ne tànki sëriñ sëriñ Tuubaa mbir amul tànki gannaaw waaye tànki kanam rek la am di siyaara bu baax sëriñ Mouhamadul Mahfouz moom itam li ma wax ci soxna li rek laay wax ci moom sëriñ Abdou mooy siyaara bu baax ci jotaay yi nga xam ne mi ngi koy taxawe te ñu yàgg xam tam taxawaay ñi di firnde la mu def rek mi ngi koy def kon loolu it yàlla ginnaaw loolu kon ni ñu ko waxee ci waxtaan wi war a def tey ji rek ci melokaanu soxna yu baax yi waaye nag ñu jël soxna Maymuna def ko ci exemple def ko ne mooy model koo xam ne lañu jël nag teg ko ci suñu anam ngir lu ñu jàngat ci soxna suñu dikkee man koo fekk soxna may mu moom mu nekk misaal buñ ci mën a joxe bu jëmm boo xam ne du doon lu ñu làmbatu ci fàttali rekk sunu boroom tabaaraka wa taala dafa yemale góor ak jigéen wàllu sàkku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu baax yoo xam ne dañoo soobu woon ci kursub sàkku mbaax ak yiw ba sunu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigéen waaye raw ci sax ay góor loolu kon day wane ne li ñuy wax ak yamale ci jamono yi ñu di ko wax parité bu fekkee mooy sàkku cër wala yamale cëru àdd ci wàllu cëri àdduna yi ci diggante góor ak jigéen su boobaa damay defe ne parité bi ëpp solo mooy parité bi nga xam ne soxna yu baax yi ñoom defoon nañu ko doon nañ ca sukkandiku ca moom la ñu bëggoon mooy yam góor ñi ci sàkku cëri ëllëg ca moo gën a sax ca foofa sax sunu boroom a ko njëkk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimaat wal muminina wal muminaat loolu boo ko toppee muy ñiy def lu baax ñi góor ak ñu jigéen rek fanaa ko mën a tënke résultat bi ñoom ñëpp ñoo ko bokk muy aadallahu law maxfiratan wa ajran asima ci kaw loolu nag am na ci soxna yi kon ñoo xam ne ci course boobu lañuy ñu soobu woon ba am ci ak raw boo fàttali ko ku mel ne naa Maryam alayhi salaam moom day dafa mel ne daf ñoo jox ak fàttali walla boog mu gën ñoo leeral waxi wolof jooju mu naan góor baax na jigéen baax na ndax ki nga xam ne moo doonoon kilifaam da doon ñaan suñu boroom ne ko yow yàlla day boo ma joxee ak njaboot soo ma joxee doom danaa la ko delloowaat sante la ko mu mel ne ba mu koy wax xelam ci doom ju góor la demoon ndax booba yaakaaroon nañ ne bu fekkee ne doom ju jigéen la kon fa mu ko bëgg a féetale ca sunu borom du ko man ndax jigéen rekk la waaye nag sunu borom bëgg koo xamal ne góor baax na jigéen baax na loolu moo tax ba mu ko mayee loola mu doon sàkk muy doom mu def ko muy jigéen loola nag xawoon na am ci moom ak jaaxle tax mu ne ko nag man dey li ma la waxoon yow sunu borom maa ngi ci waaye li ma jaaxal mooy jigéen la ci gàttal rek sunu borom bëgg koo wan góor baax na jigéen baax na tax mu def soxna Maryam ni mu ko def jaarale ci moom tam sayyiduna Isa alayhi salaam ba tax na kon fu ñu tudd góor ñu baax ñi féete sunu borom ya kenn du ca mën a gannaawal sayyidatuna Maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bokk ci loolu lépp jëfam la donte ci soxna yi la bokk nga ñëw ci ku mel ne ci atub yonent bi sallallahu alayhi wa wala waaw ba tey soxna Aïcha wala soxna Khadija ba tey da ngay xam ne jigéen wala soxna yàgg naa taxawee taxawaay boo xam ne bu am solo lay doon ca yàlla ci ñoom la ko teg seen loxo ndax soxna Khadija moo jàppal yonent bi sallallahu alayhi sallam taxawu ko ci njëlbéen ga ca mu metti woon lool. ba mu demee ba xawoon na amuk jaaxle ci wax yu wa ko njëkk a feeñ it ba mu dikkee moo ko dëfal kon mu mel ne moo ko dalal. loolu tax na yonent bi sallallahu sallam mësu koo fàtte ca dañu tam di ko fàttaliku kon kooku cër boobu mu am ba histoire bind ko ca du ko far mukk jëfam la waaye taxawul rek na jigéen rek laa soxna Aïcha doy na sëkk yonent bi alayhi salaatu salaam wax ci moom ne jël leen seen genn wàllu diine ci soxna sii kon day mel na ne ku jàngoon la ku déggoon la mu jàng la waaye ab jàngalekat la woon donte jigéen la kon loolu day wane ne góor baax na jigéen baax na bari na xadis yoo xam ne soxnaa Isa moo ko soloo kon moom duggoon na ca kursu boobu doon ci njëkkante góor ña ca itam bari na foo xam ne nag moo leen faraw donte ci soxna yi la bokk noonu nga koy toppee soxna Xafsa borom kaamil ba ca booba ay kilifaam a ngi fi di ay góor ci teewul moom lañ dénkoon kaamil ba soxna Sumayya mi njëkk a tuur deretam ci lislaam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bokk boo delloo ginnaaw ci gannaaw tam la ko jiitu da ngay dégg ñu naan jigéen day xelam dafa gàtt am ñu koy wax di ca sukkandiku ngir bëgg a woyofal jigéen fekk xamul na jigéen sax yàgg naa yilif yàlla yàgg naa teg ci kawam ci ci moom ak kilifteef waaye li ci gën a yéeme mooy ndeke jigéen mën naa am xel ci xenc lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko téye ko fonk ko nangu ko moo tax balxiis moomu nga xam ne ab buur la woon bu jigéen te jiite woon na ay góor amoon doole bokkoon ci ñi ëpp doole lu ñu bokkoon tam ci ñi ëpp lu ñu yilif ci àdduna waaye ba mu demee ba yonent yàlla Suleymaan wan ko junj boobu ma ko junjoon ci gàttal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dagg ne ko yow daal yaa fi nekk joxañal loo joxañ ñu dagg waaye moom itam ana lu mu leen waxaat dafa wax waxi kilifa ku xeriñ ko am xel ne leen nag danaa ko nattu ci gàttal ba mu ko nattoo ba xam ne kii yónnante la ci àddi yam ko joxoon ak yépp ana nan la mu ak moom mooy nangu loolee daal di jébbalu ci loxo yonent yàlla Suleymaan ca booba soxna la jigéen la kon jigéen foofu ci wàllu xel raw na fa ñu baree bari nga daal di ñëw nag ba ci ñi nga xam ne jege nañ ñu lool ca boo doon toog di lim soxna yu baax yi nga xam yàgg nañoo def jaloore ci lislaam daa mel ne ay jotaay sax mën na koo matal waxuma la ak benn jotaay waaye nga ñëw ci li ñu gën a jege nga ñëw ci soxna Asowalu Mbàkke soxna Asowalu Mbàkke mooy waajuri soxna Jaara Buso moom jàngalekat la woon kon nag jëlale naa jëlale naa dinaan jàng na ndax ko dem bay jàngale kon jàng nga gannaaw ba mu jàngee ba xam dafa wëlbatiku samp daara daara ju mag joo xam ne ay kàngaam ay kàng fóore génn nañ fa ci soxna soosu moo leen jàngal nga tudd ci ku mel ne sëriñ bu soobe nga xam ne ci ak njabootam la bokk nga tudd ci ku mel ne soxna jaara nga xam ne ci ak njabootam la bokk ginnaaw tudd nga kenn ci sëñ bu soobe tudd ki ci des muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci góor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boobaa da ngay mën a fàttalikuwaat feddliwaat ne góor baax na jigéen baax na ca soxna soosu it am teraanga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba tax na sax mën naa am mën nañoo wax ne soxna jaara li mu réussir ba ñépp naw ko ci mu am ko gannaaw ngëneelul yàlla la mu ko defal soxna Awa moomu mën nañoo wax ne ngëneel la day dellusiwaat ci moom ndax moo ko waajal te moo ko jàngal moo ko xamal te bàyyiwu ko benn yoon soxna jaara moom itam wëlbatiku moom it ab pas-pasam bu kawe yitteem ju kawe ca waxul na jigéen rekk la moo ko may cër bi mu am boo xam ne istawaar bind na ko ca du ko far mukk ndax dem ba am maqaama boobu nga xam ne dem na ba mën a dellusiwaat jamono di fekk koo xam ne ci ak kenn ci ñi yàlla boole booleeg moom la mu bokk ci njabootam muy cheikhul xadim radiallahu anhu mu man koo génn ci ay xat-xat cër boo ko ku ko mën a am du caagino da ngaa toogoon rek ne jigéen rek laa waaye da jëf da fàggu ba yàlla may la ko ngir yàlla da lay wane nag ne ngay góor ngay jigéen lii moom man maa koy joxe te nag néew ma góor rek laa koy jox néew ma nag jigéen rek laa koy jox waaye ku ko ci jëf rek min zakarin awun saa fala nox yennoo xayaatan tayiba la ci yàlla sunu borom wax wala najziyannahum ajrahum bi ahsani maa kaanu yaamaloon tam la ci suñu borom wax kon loolu itam soxna jaara foofa la jaar ba mu del si jamono googu itam mu def ko yoon ba ci bi bi nga xam ne kenn ci kilifa yi génn na àdduna Sëriñ Tuubaa dafa wax Sëñ Mbàkke bu sama ca demoon ne ko ndax gis nga sa bàjjan ba muy ba muy ba mu mel ne xam nga ñoom ñoo xam ni ñu tontoo sëriñ bi mu daan ne ko boo boo boo amoon gis rek da ko gis ndax ma nga woon ca sàppi sa kon loolu itam bu soxna si toogoon rekk ne jigéen rek la amaana loolu du ko am waaye nag dafa dugg ca kursu ba ba raw ca am li mu am loo xam ne raw na ci ay góor yu bari waa kër sëriñ Touba itam ñoom ñëpp noonu lañ mel moo taxit sëriñ Touba fa mu daa jaarale góor ñi ci njàng ak tarbiya foofu la daa jaarale jigéen ñi kon musta wax moom Serigne Touba ne ñii ay jigéen rekk lañ kon njàngum jigéen amul solo. kon ñi koy wax dégguwuñ ci Serigne Touba Serigne Touba moom dafa jàpp ne njàngum jigéen sax moo am solo loolu moo waral ba kenn dikkee fekk moo ko tuddaloon doomam mu gëj koo gis bi mu ko gisaatee mu di ko ko laaj fu mu toll mu ne ko bu doon góor day war naa toll ci wattu mu ne ko bu dee jigéen nag nga xam ne kon loolu day wane ne góor baax na jigéen baax na loolu it sëriñ bi moom daf koo saxal bu baax loolu waral njabootam gépp mu jàngal leen alquran def leen ay kaang jàngal leen xam-xam def leen ay fóori ni mu ko def woon góor ñi kon dañuy wax ne Serigne Touba ni mu amee kaangi fóori ci góor ñi noonu la amee ay kaang ay fóori ci jigéen ñi kon loolu day wane ne moom Serigne bi tàqalewul leen woon ci seen diggante waaye ñoom ñëpp da leen defoon ñoo xam ne kenn ku ca nekk rek course boobu mën nga caa dugg ca ba nga ca duggee cam raw nga ba nga dem ba ci soxna may Maymuna borom kaamil boobu moom it gis nga lam ca am la ko ca Serigne Touba defal lam ca waxtam ginnaaw ba mu ko bindalee kaamil ba la mu wax ne kooku bokkoon ci waa Mauritanie wanoon ko kaamil boo xam ne kenn ci njabootam gu jigéen a ko bind ba soxna may mën a joxee ko ba mu ko joxee kaamilam boobu dana ko siggil nga ma ndax lii de bëggoon naa ko sama njaboot gi ndax ba ma ko euh, Mauritanie naar boobu wanee soxla woon naa ko lool ci sama njaboot gi kon nag tey defal nga ma ko dig ko ci lam ko ca dig kon loola jox gi mu jox solo njàngum jigéen loolu moo tax mu bëgg loolu ci ak njabootam gu jigéen loolu moo taxoon mu bëggoon ko ci moo taxit ba mu ko ca amee mu woo ko lool wax ko ci la mu ko ca wax ba mu noppee mu yabal ko ci sëñ Mbàkke Buso jàngal ko xam kon njàngum jigéen am na solo ba noppee itam mu yabal ko ci sëñ soxna Faat Ja kon ci soxna la ko yabalaat ci jigéen mu jàngal ko taalibe jàngal ko tam ginnaaw ba mu ko tàggatee ci wàllu liggéeyu kër ca la mu ko liggéeyloo lépp kon ci tënk foofu fépp boo ñëwee nag dangay gis ne kon soxna yu baax yi ñoom ñëpp daa bokk ci seeni melokaan jàng ak xam guy feeñ ci seeni jëf ak seeni wax ak seeni i moo taxit soxna na mi nga xam ne mooy borom kër gii te daje nañu fii moom Cheikhul Khadim moom itam ràññiku lool ci xam-xam jàng ba mokkal ko waaye jàng xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawatina wàllu fiq néew na nga maanaam gisuñu woon ku ko gën a dégg fiq ci gàttal moom soxna May moom Cheikhul Khadim loolu lu yéeme la kon moom wane na bu baax a baax. ne kon góor baax na jigéen baax na ca soxna sax moo war a gën a jàng ndax mooy yarkat bu mag bi ca xale am na fu muy toll boo ko doon laaj kan mooy royukaayam bu njëkk yaayam lay joxoñ kon yàlla na yaay ji xam ndax ni lu mu xamut mënu koo joxe kon nag loolu day wane ne kon soxna yu baax yi am na nañu taxawaay mu bokk ci seenu taxawaay ñoom soxna yu baax yi itam li ñu wax jikko yu rafet jikko yu rafet loolu nag boo dikkee ci soxna may mun a da wax ne bu séeri waxoon yonent bi sallallahu alayhi di ko tagg ba yàgg mu ne loo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyoo na ko tuddal ma ci bu lay neexee lewet lewet gaa taxoon ñëpp miin ko moom soxna may ba tax na ab ëttam daawul wiit te ku ko gis tamit bëgg lool jaxasoo moom ca boo jaxasoo moom tam miin ko ba bëgg dëkk ak moom far nga tudd ci alkaram lu mel na mbaax ca ak tab law lal ko kër soxna may dara daaw fi jeex dara daaw fi doy ngir ak teraanga ju bari joo xam ne amoon na ko ñaata nit la gàddu woon gàddu leen seen lépp waaye ñaata la dimbale tam bañ mënal seen bopp ba mën a jariñe ci biir tab googee ak mbaax googee ak yaatoo ko lal ak yaatal te loolu ci melokaan ñu baax ñi la bokk jigéen ñu baax ñi yaatu ak yaatal kër dana ba dana yaatu lool ciy tabax ak ay saamur yu bari ay néeg yu yaatu waaye xat lool ci soxna yooyee nga xam ne ñoo ko dëkkee ndax ñoo ko xatal waaye kër it dana xat lool ci ay tabax waaye yaatu lool ci soxna ya ko dëkke ngir seen xol yu yaatu soxna may nag dafa yaatu ba ñépp xaj ci moom waaye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajoo ñépp waaye yaatal tam ba ñépp xaj ci aw yiwam kon loolu lu am solo la ma tëje nag ci ci mbaax googee ak tab googe mu gën a fés nag ci guddeem gi nga xam ne moom la ñuy waajal muy leelatu xadar cam amoon ci ndigal cam fonk ko lool ba tax na boo dikkoon ci kër gi man damay wax ne ay robinet robinet kafe ci kër soxna may nga koy fekk ci la Laylatul Qadr robinet café robinet bisaab robinet lu ne rek fii nga koy fekk ay bagaani lu ne ci noonu la ko daa yóbbee ci waa kër Serigne Touba yi mbokkam yu baax yooyu am na ñoo xam ne daa da leen a saxaloon sax añ bi reer bi loolu lépp daaw fa daaw daawul manqué jumaa ji moo leen yore loon seeni seen lay jëm ci ñoom seeni ndékki moo xam mburuma moo xam kafe ga moo xam lu mën a doon lépp moo ko gàddu woon kon moom dafa yaatu woon tey yaatal moo taxoon mu xajoo ñëpp ba ñëpp xaj ci moom kilifa nag bu yaatoo tey yaatal dañ koy daal di boole ci ña nga xam ne kon dañuy daal di am njariñ waaye bu fekkee yaatuwul nag kenn du ko miin te kon su boobaa kenn du mën a jariñ ci moom bu yaatalu itam jariñ ci moom dana jafe ndax kenn du mën a xaj ci aw yiwam ndax ñàkk gaa yaatu la tax soxna may nag dafa yaatu te yaatal su ma ne nag ci leelatu xadar du ma ne fa la yem ndax loolu daa am cosaan ci lislaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ne moo gënoon a baax ñëpp gën a tabe ñëpp waaye rawatina ci weeru koor xam loolu dañ koy wax Serigne Touba danaan moo gën a tabe ñëpp gën a ubbeeku ñëpp waaye rawatina ci weeru koor ak gàmm kon soxna may bi ñu waxee ci moom loolu day wane yitte ji ak fa mu ko tegoon loolu rek lay wane sëñ Fallou kon xam naa foofu lay tëje ni ba ñu ñëwaat incha allahu ci waxtaan wi nga xam ne moom la ñu jëmle soxna yu baax yooyu ca ak ubbi rek. koy woon na lool waaye leeral nga ko itam ndax li nga waxoon ci njëlbéen gi rek ne boo demee ci réew yi développé yëpp boo demee ci seen kàggu ya ak seen seeni seeni bibliothèque ma ngay feese ak histoire seen magu réew ak seeni boromi jaloore te loolu itam layal nga ko bu baax ndax la nga tàmbali ci Sayyidatuna Maryama alayha salaam ba ëgsi ci eh, jamono ji ñu nekk ñi fi nekk ñëpp li ñu xam ci ñoom bu fekkante ne ña ñu nekk lan farluwuñu woon ba bind ko kon mën naa am duñu ko xam kon loolu mel na ni waxtaan wi ubbeeku na ci li nga xam ne moo waral jataay bii tey ni ñu def rek mooy jox kàddu gi Serigne Mourtala Bousso defe naa ne fii nga xam ne fi nga taxawloo bu fi tàmbalee dana gën a yaatu incha allahu taala mbokki jullit yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare ci guddi gu tedd gii ñu nekk ci weer gu tedd wii di weeru koor ci kër gu tedd gii du kër sunu sëriñ sunu kilifa naa may sayyidatuna Maymuna Suxra ñoo ngi ziyaare ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gii nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu sëriñ ñoo ngi sant bu baax te ziyaare sëriñ Abdul Ahad mi nga xam ne moo ñu dimbali ba boole ñu ci xeewal gu mag gi ca loolu ku la fonk rek moo la koy def. xam naa wax ji moom du yaatu man wax dëgg yàlla bi may ñëw tey taxut ma saware noonu waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm damay diglu rek bu ñu waxee ma xool lu ma mën a jàngat ci li ñu wax rek waaye wax dëgg yàlla tey taxul ma saware noonu di xamal ne sëñ Ilimaan démb ci guddi bi ñu sëñ Abdullah joxe ndigal li danga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootu Sëriñ Tuubaa la bokk ca ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan waxtaan woo xamante ni li maanaam mi mooy doon daanaka rek maa xamul nu ñu koy war a wax ci wolof yu jub namazij min nisaa in saalihaat mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yeneen am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariama mi nga wax donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye ne ko am daraja la am ci ñoo xam ne ay saxaaba lañ radio yàlla yàlla yokk ay xéewal ku mel ne soxna Aïcha ku mel ne soxna Xadija moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi ci li ñu baree bari wax mooy ki nga xamante ni lislaam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe ca moom mu xawoon a mage yonent bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayoon ko kàttan mu nekkoon commerçante bu mag a mag waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey lislaam dëgër na lool lu baree bari lislaam tey mi ngi koy am ca ñu ngi ciy sant soxna Xadija moom moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax xam nga jigéen ak jigéen rek bi ko yonente bi tagg am ku nekku kat kii jërul nga ciy sonn soxna la su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon moom yàlla musal na la ci moom yonte bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Xadija yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal it la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu waras na ci bàyyi xel bu baax cër bu nekk kon soxna am na ko ci lislaam doonte sax liñ gënoon miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg sut na ci arab yi mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu wa isal su suilat bi ay zandin qutilat yooyu yëpp amoon na daanañ nekk di donn ci miraas di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si baayam waaye lislaam cër bu mu jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne lislaam ji nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néew doon doole jigéen mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane wax nga ci lu bari bëri inal muslimin wal muslimaat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk lislaam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka ñekki noonu ba tey bu fekkee sart yi daje na ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sàtt yëpp yom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci société bi biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tax naa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin urida biha baatil mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo liñ ci jublu baaxut amul solo mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci lislaam am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci lislaam waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war a xam ne rek jigéen la ndax yàlla subhaanahu wa taala moo wax ne ar rijaalu qawwaamuuna ala nisaa jigéen nag am na doole lool am na cër bu mu am lool doy na ko sëkk daraja loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge mooy góor goo gis moo xam ab yonente la moo xam wàllu yi la jigéen mooy ki ko fi andi kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko lislaam yam kon ñooñu bu ñu fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la waaye doonte ñoom lañ jublu dëgg waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñ jigéen ñi ñu yàlla jox ñun muy suñu sëriñ su tedd si ca ma ci joxe misaal tey rek muy soxna may mun a mbàkkee su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi sëriñ jigéen yi ci des ndax ñoom benn lañ comme li ñuy wax naan boo xamee sëñ Modou Moustapha xam nga sëñ Mourtala waaye soxna may munatu mi it man ngaa ñëme maa wax soxna may munatu soxraa soxna may munatu mbàkke mi it boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna ja ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel benn lañ ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa la ñu rootee kon soxna May moom moom rek buñ ci joxee misaal day na mën ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba des jigéen ñëpp noonu lañ mel doomi góor yi ci des yëpp it noonu lañ mel ndax école bi benn la benn école rek lañ génne ñoom ñëpp ñoo bokk foo xamante ni fa la ñu rootee moo tax bi nga xamante ni benn boroom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yu jigéen ñi de dafa wane ne bi mu bi mu ñaan ci ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahaara man iqtafayna hadiyahu jihaara maymunatun muminatun wa muslima yadfaana kulla zulamin wa mazlama mooy yow yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb doomi sëriñ Tuubaa yu jigéen yu tedd yu sell yi ca lenn mayu leen seen tedd nga géegu lu dul rek ñu xool yoon wa nga xam ne fa la seen waajur jaaroon muy sëriñ Tuubaa ñu teg fa seen tànk maa ngi lay ñaan ñaan yu rëy yooyu nga xamante ni ñaan na ko ginnaaw bi ci la tàmbali lim nag doomi Serigne Touba yu jigéen yooyu di def tawasul ci ñoom mi ngi ko tàmbali woon ci ki ci magoon di soxna ja mi ngi demoon it mujjantale ko ki nga xam ne moo ci mujjoon ci ñoom muy soxna may munata suxraa mi nga xam ne tey moom lañ nekk këram moom soxna may moomu yàlla kon ngeen xam ne mbooleem cere bi nga xam ne am na ko mbooleem daraja yu mag ji ko yàlla dénk nga xamante ni xadis bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax ne aw kama xaal yamal li dunya ka annaka taishu abada wa amal li uxra ka annaka tamuutu xada mooy bu fekkee yaa ngi liggéey ci àdduna na nga jàpp ne doo fi jóge ba mukk waaye nag bu fekkee yaa ngi jaamu yàlla di liggéeyal alaxira nañ jàpp ne suba nga fi jóge soxna may dafa mën ne déggoon na xadis boobu lool xam ngeen ne jàmbaar la woon lool li yàlla naan laa tan sa nasiibaka mina dunya defoon na ko mooy fàttewutan àdduna ab cëram doyoon na sëkk li mu waroon a lijjanti ci àdduna doon na ko lijjanti teg ko ci xel mu rafet waaye nag it fi ko lislaam yemloo rek kit nag fi la doon yem doy na ci sëkk misaal lu cër bu lu ci nekk taxawal na ko waaye néew na nga dégg kàddu soxna may mënatu suxra néew na nga ci rajo wala ci télé yu mel noonu lu mu ciy wax néew it nga gis koo muy def lenn nit loo xamante ni kon modèle la woon maam nekk gi mu nekkoon noonu rek doy na sëkk ku nekkoon ku ñu war a roy ci moom yàlla dimbale woon ko lool it muy ki nga xamante ni moo li muy gën a gën a ndawee ci njabootu Sëñ Tuubaa waaye yàlla dogal nit ràññeeku woon na lool ci moom ba amoon na ci cër bu kawee kawe xam nañ ci lu baree bari ndax ñun ñi ñooy ñi mujj gone yépp yàlla dogal na xam nañ ko bu buñ jox sawutul nag moom it gis nañ ci moom lu bari waaye misaal mi gën a màgg rek ci soxna may mun a yoroon ko mooy nekk gi mu nekkoon koo xamante ni ku mën a yare la loolu doy na ci sëkk misaal ku ne xam na ñun fii lañ du fekk ko fii mu dëkk fii ci koñ bi ak ñi ñu magoon waaye yaakaar naa kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg loo war te dégg ci donte nag day xew fépp ndax yàlla musulut kenn loola jóge ci kër gu tedd gi nga xam ne mooy kër soxna may mun alhamdulilah yàlla dimbali nekk loo xamante ni ñi mu yaroon daanaka rek ku ci nekk day mel ne jëmmam ji lay remplacer moo xam ne ci nit yi di sëy feneen ñooy gën a mën a sëy ñi nekk ci biir kër gi doo dégg lu ndawee yu ñàkk solo yi nga xam ne baax nga ko dégg ci kër goo xamante ni ay jigéen ñu bari ñoo fay dajaloo loolu doy na sëkk sëkk misaal waxuma laak nag ngay fiy dégg ñuy gaañante wala ñuy def leneen loolu misaal la loo xam ne war nañ ko bàyyi xel te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax it bi nga xamante ni soxna may munatu yàlla dimbali na ko bàyyee ñoo xam ne message boobu nga xam ne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer soxna may munatu li nga xam ne moom lañ ci wax rek mooy yàlla dimbalee ko mu doonoon koo xamante ni xam lool li mu bëggoon mooy nekk ab jullit piir fexe ba li nga xam ne mooy wàllam ci lislaam mu suyee ko ba mat sëkk loolu def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xam ne daara yi nga xam ne taxawal na ko soñ imaam wax nga ko man xam naa soxna yoo xam ne moom lañ ko tuddee nee nañ ma moo leen dalal alxuraan am na ci koo xam ne sax war na ma alliwu ji nga xam ne moom la ko dalale gis naa ko jàngal leen bañ sori gis naa ñoo xamante ni jàngal na leen dara ci xam-xam gis naa leen gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo way yooyu li nga ciy déggee rek mooy kii nitu xam-xam la woon li nga ciy déggee mooy kii soxna la soo xam ne soxna saykat la woon way yoo xam ne pasteefu na lool yenn ci mi ngi koy jëmee ci ki nga xam ne mooy kilifa gi mu nekkaloon muy Serigne Cheikh Sidil Muxtaar Serigne Cheikh Awa Balla niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni waras na ko xam mooy tamoo gi nga xam ne yàlla defaloon na ko mooy nit koo xamante ni ku ñor ku am pastéef ndax gis na ne àdduna si yàlla andi wuñu fi rek ngir ñu toog nit ku a doon war ngaa fexe nag ba am foo féete ña nga nekkal mooy société ba nga nekkal moo xam ci misaal am na foo xamante ni fu foo xam ne féete woon na fa yoon wi nga xam ne ci la bokkoon ca baayam radiallahu taala anhu mooman ko muy Cheikh Ahmadou Bamba doy na sëkk cër bu tedd bi nga xam ne jël na féete ko ko ci féete fi ñëpp féete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamante ni tey képp koo xam ne yaa ngi koy dundal ci àdduna foo mën a nekk sa xel ca bokk ci yoonu murit sa xel dina doy ci soxna may dina nekk soxna may mënatu soxra muy guddi gi laylatul xadir gi yàlla dogal xam ngeen ne loolu kiimaan la ba mu koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamante ne du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa féete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci andi woon loo xam ne bëriwut waaye li mu tollaloon la defoon ne ko nag kat damaa bëgg a liggéeyal bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam nga ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it war na cee jàngate lu bare bare ndax jigéen kooku kon xam na ne kon jigéen nu mu mën a mel mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil sëñ Fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba àdduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñuy wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam ne ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may gu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne la mu doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu bare baree bari loolu li ko waral yéen a jut ji nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yéeneem ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko te lépp bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci mu muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi laylatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daal la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawe ak ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari lu ci nekk yàlla wax ko ci alxuraan mooy layatul xadir mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn te ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla dogal bis boobu moo gën ci bis yëpp guddi googu moo gën ci guddi yëpp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy bis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gu mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci mën a doon ci xam ngeen ne kon boo doon beneen bis boo xam ne nekkut ci weeru koor tiyaaba jëng cee am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mun a di màggal danañ ko ful ay junni junni junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tata tatadaafu bi xasabi zamani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon ko mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñi mu nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa. misaal mi ma ci joxe rek men la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadul Murtada loolu ko xam rek mën nga cee xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekke wu ma leen wala xaw ma leen relation boo xam ne rafet na loolu Serigne Murtada si mii mën na ko seere man jàpp naa ne sax euh, li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xewaloo moo ko fa daan indi gis naa it gan ñu màgg ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mu jëm jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mun a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ab jigéen war na faa féete jigéenam kon foofu la féete woon sëriñ Murtada radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom moom ñoo xawoon a mujj ci njabootu sëriñ bi waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di eh, lu am solo relation yu rafet rafet niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante bi ak njabootu sëriñ Touba gi bu dee ñi ci des nag suñ mbokki taalibe ak ñi nga xamante ne mooy waa Touba mooy moom diggante bi rafet na loolu waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawee la ba tax na buy jëf da daan bëgg a dàkk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wóor ko ni àgg na gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa ji defe naa ñépp ko jooy waaye waa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy yaakaar naa gis na ne Serigne Touba li mu gënoon a bëgg mooy alxuraan mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alxuraan muy waa kaamil ba doon ko def ci ndigalu Serigne Touba dépp mu fay nekkee ba ni mu fi jógee mu saxalal leen defe naa lekk ay teraanga yoo xam ne suba gi ak ngoon gi musta deñ benn yoon alhamdulilah ba jamono ji loolu it liñ ci mën a jàngate bari nag xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ne xam na li mu bëgg lool bu baax a baax ndax lu ci nekk day mel ne moom kon liñ baaxoo wax ci xelum jigéen moom dalu ko defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam yaakaar naa moo gën a kawe fuuf xelum góor pësteefam ak yitteem moo gën a kawe fuuf yittee góor ca boo xoolee ni mu doon doxal rek dooy na mooy lu muy def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fas yéene liggéeyal boromam fas yéene ci liggéeyal waajuram feeñ na it ci fi mu daan defe lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg moo tax xaritu jaa daaray kaamil la woon daaray kaamil joo mën a def sëñ daara yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la xariti imaam yi la woon xariti it mboolem niti diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ay nit ñu baax lañ ñoom la xaritoo loon waaye nag kat daawut jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante nii moom xëy na mën na cee am taggu àdduna nii rek waaye war na ko ne mën na cee bañ am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daawa ko def loolu bokk na ci li nga xam ne waras na ci roy suñu waajur woowu suñu kilifa gu baax googu muy soxna may mënatu menn mu bintu xaadim rasul soxna may mënatu suxra li nga xam ne xam naa sëñ bi yaa ngi may wax ne waxtu bi dal na li nga xam ne moom laa koy tëjee rek mooy ca ñu war ko cee roy ñun ñëpp mooy ñu xam ne parité li ma ci wax léegi rek kalimatu xaqin urida biha baatil mooy baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo bu niroo dëgg ci kaw li ñu ciy jublu baaxul waaye soxna may moo déggoon li nga xam ne mooy parité loolu mooy soxna am na rôle bu ko yàlla jox boo ci lislaam boo xam ne war na ko def mooy ni ko góor amee ni la ko war amee soxna may dégg na loolu moo tax xam na li mu war a xam pratiqué na lépp loo xamante ni lislaam digaloon na ko def na ko yar nañu bare bare bare bare yar nañ yarub lislaam wan na leen ne jigéen it toog di togg ak yekk toog biir këram rek baax na waaye nag bu mënee fexee ba def lu rëy rëy rëy ci lislaam loo xamante ni kenn mësu ko def mooy keree loo xamante ni xëy na mii nuñ ko fi woon na ko muy guddi gu tedd gi nga xam ne ngi koy màggal tey muy liggéeyukaay yu mag yi tedd yi mu defoon ca it nag wan ñit ñi nag nit it lu mu mën a liggéey lu mu bari bari li gën rek mooy na ko delluwaat ci yàlla moo tax mboolem ay toolam mboolem lim daan am lépp boo ko seetloo li ma la wax léegi rek ci njabootuk Serigne Touba la ko daan delloo ci daaray kaamil la ko daan delloo maa ngi koy tëjee rek ci li ma doon wax léegi ne moom amoon na relation bu rafet ak mbokkam yi keroog bisam bu mujj bi yàlla dogal man bokk naa ci ñim taw feexal mooy bis bu mujj bi nga xamante ni ci la ab liggéeyam mat ko ba dellu ci këru dëgg muy muy bis bu bu mujj bi booba ndakaar la mu fekk boobu maa ngi jàngee fenn ci réew yi naar yi yaakaar naa lool sëñ du mi moo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Mourtala yaakaar naa ko lool bi mu naajee biñ xëyee di nuyu ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool jékki-jékki wane na dafa bëgg dem Touba te junj ñi mu nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën yàlla dogal man bokk naa ci ñi àndaloon ragal naa ne sax ma kenn leen rek la àndal wane ne day dem ñëwaat bi ñu ñëwee ba génn dëkk bi la ñu junj wax ñu li xew ne soxna May moo fi jóge waaye sëñ bi keroog yoon wi ba nañu accès wax ji triste na lool lool lool yoon wi mm-hmm. mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da ciy déggee mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko ko remplacer léeg-léeg nag da ngay seet rek fi mu ñu féete woon da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu bi ñu mujj wax sax keroog dama nekkoon xam naa daal nuñ lay def daal xaw ma ko nee na mu reeni ma ah, xanaa bàyyi bàyyi maag sa bàyyi bu tedd boole maag sa bu tedd ba rek nee na keroog bi mu koy bi muy mujj kii loolu la mu wax ndeysaan keroog waxam jëpp na la woon bi ñëw ba jege si tuubaa sëñ bi jëf yi da daw yaram ci moom mu taxaw njaaram ci bëccëg bu métti la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bi ñu agsee njaaram mu escale fa toog fa lu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def naa alaaj jaxate la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi mi ngi toog ci biir téléphone lenn sëñ bi jaxasoo na lool ndeysaan ginnaaw bu mën a ah doy na waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna May mi diis na comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daana lool rek la tax mu toog fa tuuti waaye jàpp naa ne it na comme soxna May yéene na ko lépp lu aw yiw ca boobu ngoon ak alxames la mu xam ne guddik àjjuma ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju so mu ñëw biñ ñëwee mu jubali asalem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekke naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaaskare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye keroog it triste na lool ba mu noppee doog ko ñaanal doo ko delluwaat waaye fan yooyu yëpp it rek la doon wax mooy waxam mooy fi nga xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekkee ko nee naa la loolu yàlla tawfeex la ma guddi googu àndoon naa ci waaye mboolem nu lu ci loo ci wax digganteem ak sëñ Murtala man nga ko ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo tam moo tàmbale ci sëñ Modou Moustapha nga ko waxit ci ñëpp waxuma la sax ci doomi sëñ Touba yi muy bokkam yi muy seexam si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yëpp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu murit nag ñu xam ne soxna ma it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doomi sëñ tubaa waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna may bari na lool photom bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photom bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko cole nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbikoon na lool waaye nag it nag daa sàmmoon na lool mboolem fu ko lislaam yem la woon rek fa la yem mooy kon nekkoon na ku neex a koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun so jigéen ñi rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci bi mu amoon mën a jaamu yàlla lool wax nañ ne sëkk al ajjuma daana dem siyaare ji fee ci barabu sëñ Tuuba wax nañ ne it daana faral di def yu baree bari ay xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la loolu nañ ko ci roy bu baax a baax waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon soxna may munate bi moo ci mën a noppalu ndax kat mooy ki nga xam ne doomi sëñ Tuuba la mu wóor ko ne am lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex ci taxu ko woon a nopp noppalu depuis ko yàlla bindee muy gone musta noppalu ba ba ni mu fi jógee keroog wuy ji loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax surtout soxna yi ca xam ne nag kat soxna may école la doy na sëkk royukaay wet gépp rek mënees naa roy ci moom nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu nañu defaree suñu alaaxira lii rek la jàngate ci waxe suñu ilimaan waaye tey waajulu moon leen ndax sama yaram damaa xaw a si buru tuuti jërëjëf jërëjëf sëriñ jasaakallaahu xayran wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jànge lu bari li waxtu wi xat-xat ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk lislaam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara lislaam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jug bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko palaasam wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Sëriñ tubaab mi nga xam ne def na ci lislaam loo xam ne histoire nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci lislaam yàlla fayee ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal lislaam rawatina nag njabootam gii nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxaw taxawaay woon du ñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf na góor ñiy jëf te loolu fir jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër sëñ Mourou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna May mun a gii amuñu ak amuñu luñ leen di jaawalee na ñee mel rek ni noonu la ñuy mel loolu kon mooy wane ne soxna may munatu jikko yi nga xam ne lislaam da koo soxla woon te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor loolu nekk na ci soxna may munatu ndax dégg naa Serigne taxaa moom Cheikh Amadou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom bañ a ñaaw sa digganteeg say moroom defe naa ne ku xam soxna may munatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko ndax ni nga xam ne ñu la doon doxee doonoon na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi euh, sëñ imaam daaneel na kàddoom ndax moom feeñal na ci njëlbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag te seen ak farlo leen ko may dégg nga si itam sëñ Mourtala Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne soxna mbay soxna may muunatu amee woon na ko te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy was tax marukum fi haajoo ji alxuraan di wax nga xam ne suuf si li fi nekk ay ay jinne ak i malaaka duñ ko fi def waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal lislaam di jëriñal yàlla bindeef fii foofu nga fekk sëñ Murtala daaneel fi kàddoom kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee aoudu billahi min asheytaani sayidina wa mawlana muhammadin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki tedd yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di jéggul bu baax ci sunu yeex a agsi ajiwul ci sunu coobare yàlla dafa dogaloon ñu dem bay waaj ngir ñëw far am gan ca ganit jamono ji ni mu xattee Mm, damay faral yoo wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg waxuma nag mu jël téléphone am wala waxuma laak nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitteel yitteel it nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju loolu rek moo ñu tax ñu yéex a ñëw waaye euh, du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali. ci kilifteefam ci kilifteefu yi nag sëriñ Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk woon sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di sëriñ imam ak sëriñ Mourtada Bousso mu mel ni kii mën a son na ko doyloo walif ñuy jël kàddu gàttal loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo sëriñ Mourtada wax ko léegi muy fàttale fàttali jëmm ju tol noonu euh, war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay royuwaay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jógee ak léegi ay at yu néew la yi nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ju yàggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj lëj lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñaŋal ko ba cir bu mu ci am ci ko Tuubaa radiyallaahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jógee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye na jamono gi ñu nekk xam naa man nag euh, kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yi jiitu woon su Sëriñ Murtadaa daane leen rek fi laay gën a jëm muy ne euh, roy gi ma waxtaane soxna May bi ñu koy def waxtaanuñ ko ngir tàgg maam yi sëñ Cheikh bi déedéet loolu moom képp ko am xel waroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex sëñ Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna May njariñ la du bari njariñ la lu ciy juddoo lu lu ay ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam ne lu koy nuru ca loolu nag euh, solo si bëriwut solo si bëriwut waxit ci soxna May ngir bëgg soxna Bally ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye liy solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaanee ko ñu jël ko teg ko suñu kanam li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay seetu suñ kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem ko jikk woo ndax mooy suñu njariñ damay faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mu ngi mel ne rek nga naan sëñ baa ngi ca dixième étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah man ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye loolu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg ci suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg ci kon waxtaan yi nag li muy am am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon li wax ne rawat na jamono ji mooy jamono ji jamono gi doy waar la joo xam ne ñu bari ñu ngi ñàkk seeni valeur ci xamatuñ ko yëguñ ne it ñu ngi ko ñàkk li gën a yéeme mooy nit kuy ñàkk li gën a fort ci moom ci yëguñ ne mi ngi ko ñàkk seen nga ndaw lu yaroo ci keppaaru Serigne Touba di anhu bu duggee ci biir jamono di wut jamono moo xam lu mu ciy wut ci biir jamono mi ngi mel ne ku takk caqub jamaa di jeex përëm bu sàgganee ba caqam ba rot ci fa mu doon jeexee lu mu mën a jël ci përëm lu mu fa dagalee caq bàq gën mooy melokaan wi Serigne Touba bëgg ci ñun dañ ko war a téye dañ ko war a sàmm dañ ko war a fonk waruñu ko sàggane jamono wët tax ñu sàggane ko soppi ko jamono wët tax ñu sàggane ko mel na it euh, la baaxoon dafa mujj tumuraanke dafa néew doole dañ koo suufeel lu tax nag mu bon ba mukk la gënoon ba àdduna tukkiit mooy gën qul laa yastawi al xabiisu wa tayibu wala wa ajabaka kasratul xabiis àdduna bépp bu nekkoon ci ab safaanit na leer ne la gënoon mooy gën la amoon valeur mooy am valeur la baaxoon mooy baax kon mbokki soxna yi war nañoo bàyyi xel bu baax ku mel ne soxna may mun a mii jël ko def ko référence mag ñi day li taxoon ñu daan tuddee ku mel ne soxna may mun doom soxna mu'mina soxna muslima soxna muhsina du woon rek barkeelu ci tur yi du woon rek doomi Sëriñ Tuubaa la mu doy waaye day li taxoon mooy dañ daan bëgg am Maymuna ci seen biir kër Maymuna Njaay Maymuna Samb Maymuna Jaañ Maymuna Nangam moo xam ne day leer ne sant wi lañ bokkul waaye dem na tibb ca lam man ci jikkoy soxna May ci melokaanam wa ci doxalinam wa ci léppam lu rafet indil la ba nga xam ne yow booy koy xool da nga xam ne ku ñu defara ngi nii ku ñu a ngi nii ku ñu waajala ngi nii loolu moo war a waral ñu daan tuddee soxna yooyu doom daan leen ko joxit ñu leen yar di leen defar di leen waajal ku fa jaar masa jaarit daan wuute ak ku fa jaarul waaye rek nekk am saa bàjjan di xëy di di soq ka wal ak di togg ka yàq ka fóot loolu taxul woon objectif bu weesu woon na loolu jubluwaay bi weesu woon na loolu moo waral nit ku mas a yaroo ci keppaar yooyu it da woo yam ak ku fa yarowut wax nag léegi nag jamono dafa doy waar ndax booba it mag ñi dañoo amoon dañ daan dañ daan yilif seen environnement bare bi ñu daan yare dañ ko daan yilif jumtukaay yi ñu daan yare danaan méngoog seen barab laneen lu ci bokkul dawu ci rax léegi nag mën ngaa tëj sa kër tëj say gone yi ngay yar maanaam jamono ju nekk ñu ngegenaayoo àdduna ci seen bopp adduna di wadd miir ya wadd biir buntu néeg ya dugg ca biir fekk ka nga yar def ca moom la nga def ci moom moo waral it yarkat yi farlu gën a war ci ñoom far lu fexe ba li jamono indi ci ay jumtukaay ñu fexe ba di ci di ko méngaleeg seen doxalinu yar ba jamono bañ leen di weesu ndax yarkat bi bu dee li ki muy dund xamu ko boobaa ngir mu yar ko dana jafe ci moom ngir mu jeexital ci moom dana jafe ci moom ndax day xam ne rek niveau bi mu nekk ak bi mu nekk moom mi ko yar wuute na ca boobaa dëgg-dëgg pour mu jeexital ci moom dana jafe kon nag war nañuy bàyyi xel bu baax a baax kon ci jéem li sëñ Matoula di wax sànq ci ci jikko yi ci melokaan yi rawatina ni mu wax li jeexale muy image soxna may boo ko xoolee xam ne kii duñ duñ la ab jullit laa nga doo ko xam ne jullit la loo ko wax nga doo ko xam boo ko xoolee danga xam ne kii ab jullit la ku gëm yàlla la màndargay jullit yépp ngi ci moom euh, loolu nag di lu ñu war a téye ndax léegi euh, dangay ngay jigéen bala bala ngaa xam ne jullit la dëgg doo ko xàmmee amul menn màndarga moo koy xàmmee ka ca des doo ko xàmmee ci leen maanaam dana la dal ab jullit laa nga doo ko xam wala muslima laa tudd mu'mina laa tuddu maymuna laa tudd jaaratullah laa tudd nga doo ko xam ne kat kii kon ndekee jullit la waaye la nga ci des def lépp da koy def gis nañ ne ñi dàq fecc ci réew mi tur yu baax yooyu lañ yor ñi dàq col colu ca sàggan tur yu baax yooyu lañ yor ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy ci ay safaan yu bari tur yu baax yooyu lañ yor loolu nag war a tiitloo ku yëg ku yëg koo xam ne da ngay yëg responsabilité yi nekk sa loxo nga koy nga koy yëg eh, ga gàddu li mag ñi gàddu woon nga xam ne danga ko war a yëg loolu képp koo yëg danga tiit ci jamono ji nga xam ne ci lañu ñu nekk xoolee image bi ñu doon wax bi sëñ Murtala di wax sànq boo xoolee soxna may Maymuna du yem ci kolu du yem ci muuru ba noppi waaye ginnaaw bu musóoroo ba kolu ba noppi doog a jëlaat nag ab rabal tegaat rabal ku daan bañ ab sedd gaañ la moo ko daan sangoo jigéen ñi léegi col yu oyof fii rek dañ naan bu bu moo fat dafa tàng dafa tàng dafa tàng ah waaw léegi bu dee soxna may mun a moom eh, amul lenn looy jël ci moom lu dul aw tur wala amul lenn looy jël ci moom lu dul bàkkook ndamook tiitaroo lu la jëriñ lu bari sunu sang ba sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu nee na woon ki xëy jëm penku tëdëpp nga xëy jëm sowwu tëdëpp boo ne yéeney bokk fi ngeen di añee yaa ngi nax sa bopp newoon na it adduna ak àllaaxira dañoo nuroo lool ca wuute lool adduna moom ci gën a baax ci àdduna ak ki gën a bon ci adduna man dañuy toggandoo di waxtaanandoo di lekkandoo di nelawandoo waaye fee ñu jëm li ko wutaleeg fii moom mooy fee moom koo bokkalul lu ngeen daan jëf du ngeen fa gisee koo bokkalul lu daan jëf du ngeen muy wax ju leer kon ñu xam ne kon nit ki ngir jéem a roy roy soxna May mel melukaanam ba ci kawam ak ci biiram mooy dëgg-dëgg li koy li koy jariñ boo xoolee foto yi ñu jàkkaar loolu day da nga gis ne moom doon na jëfandikoo bayit ba Sëriñ Tuubaa doon wax nan walan tanaali diina xatta tasturi jismaki yaa zeynabu bi taxamuri walan booba xarfu nasb lay jàngale ci ci ci ci naxwu lan gi nga xam ne day day day nasab fial moom la doon jàngale rek de moo ne bi mu àggee ci jigéen ci li nga xam ne moom mooy xasaf nuun nga mooy tax mooy saxoog nasab ga mu nan ko walan tanaali walan tanaali diina xatta tasturi moo ne bu ne ko woon ra sëki yaa zeynabu bi taxamuri du tee lam doon jàngal dana ñëw xarfalan ba dana ñëw bu doonoon musóor musóor képp képp ra sëki bu ko waxee misaanu arol bi dara du ci damm maanaam wayu ko taxoon jug dara du ci damm waaye gis ma ki dafa dégg li muy wax dégg arab xam li muy wax bu baax a baax moo tax gis ma ki la ko wax fii ak muuroo sayram yépp doonoon ab julit mais wax ne koo xam ne nag moom sëñ bi nee la yow noo mën a mel nga nekk ab murit waaye bala nga nekk da nga nekk ab julit ca lan la jëfandikoo lan moom mooy loo xam ne musta nekk ca du nekk lan loo xam ne moom fii ak nangam amut nangam du am ca ne fii ak kon muuroo sa yaram wi yow jullit bi jigéen bi ne la leer na doo doon ab jullit kon yooyu mi xam ne yaay roy soxna may Maymuna war ngaa bàyyi xel bu baax a baax ci loolu ci melokaanu tey bu buñ la gisee nga xam ne kat yow yaa ngi koy roy ci ak colam ndax lan mooy la war moo lay rawale moo lay ñoŋal moo lay jàllale wuuteeg nag safaan ba léegi li am mooy sunu doom yi ñun jullit ñi sunu doom yi ñun murid yi ñoom ñooy roy ñan la ñuy roy mbokk yi yan modd ñaw la ñuy la ñuy ñaw yan colin la ñuy la sol kenn kenn ci ñun koo xam ne mën naa maanaam durus ci kanamu njabootam ñu soloo daanaka du am kenn ci ñun koo xam ne leer na tey bu ne la woon sëriñ bi dalaa soxla nga mën ne bëri wuy ji ca doo jaari waat waaj du am loolu nag mbokk yi lu mat di bàyyi xel la ndax euh, euh, sëriñ bi saa bu la woo war ngaa jekk saa boo soxlaa yàlla déyanteeg moom war ngaa jekk Sëriñ Tuubaa mosoon na ko wax benn mag dana ko woon ndax xam nga kuy dem aljanna nga wala déet mu ne ko mbàkke loolu mu xamoon dana neex loolu mu ne ko ak yomba xam boo saxee ci loo xam ne bu ne la dee bu dee taxawoon sa bunt néeg ne la asalaamaaleykum mën a dee nga ko bismillah jàll sil yaa nga coono àjjan waaye boo saxee ci loo xam ne bu la dee ne woon asalaamaaleykum mën a dee nga ne ko taxawal tuuti ma defaru nee na boobaa yaa nga ci yoonu safaan ba ak yomba xam kon soxna su nekk nag war nay waaj xam ki mu war a roy kan la xam muy jëmm ju mel nii mu def ko royukaay teg ko ci kanamam ñu ñëpp am nañ ci responsabilité ñun ñëpp kilifa di yi am nañ ci responsabilité ci delloo si waat ñii seen dund ñu jël ci ay ay duruus ak ibar di ko def ay séminaire di ko waxtaane ci barab yi ñu ko war a waxtaane ndax suñu waxtaan dëgg la am na solo lool de lii waaye nag war nañu fexe ba bas bis ba nga xam ne ñëpp teew nañ ñu jël ci donte quinze minutes la donte vingt mille vingt cinq minutes la ñu jàngat ci jikko soxna may jël ci ñetti jikko képp jàngat ko indi misaal yi ñoom ko jëflanteeloon ñan la ñuy ñoo xam ne ñëpp dañ leen xam ñoo xam ne li ñu wax du lu ñu téwér rek di bàyyi bu bu beneen yoon ñu def ko bu beneen yoon ñu def ko nit ñi di ci jël ay bind di ko jànge lu ba lu ma ta bàyyi xel la ndax damay faral di wax ne bisi xew-xewi diine baree bari eh, li ci ëpp dañoo seetluwul ni ko defee waaye léegi dañuy tàqale lu mel ne lépp lu jëm ci waxtaan yi dañ koy tàqale ak la xam ne moom mooy lu jëm ci bis ba jamono bis ba dëgg-dëgg ak ba ñëpp teewee ña nga xam ne ñooy jël message di ko gàdd di ko yóbbu daanaka pour ñu dégg lu ñu yóbbu léeg lañ mu jafe ndax bu dee conférence dañuy def léegi conférence balaa bañ ne gannaaw suba la la def conférence ba bu defee mu mel amul benn lien amul lenn lu ko lëkkale ak ak ak ak màggal gi loolu damay wax ne kilifa yi war nañ koo càmbaraat bu loolu mënut a ñàkk it mënees na def conférence ba it waaye nag bis ba nga xam ne message bi buñ ko buñ ko jàllalee dëgg dana jàll nañ ci jël benn message bu di ko joxe mu jàll. ñi ci des mooy ñun ñun taalibe yi ab taalibe day war naa bàyyi xel bu baax a baax ne dafa jaayante. jaayante gi mu jaayante Serigne Touba radiyallahu anhu war na koo ñor du lu ñuy du lu ñuy wax rek positif la buy nekk ci xol nga fas yéene mu nekk muy feeñ ci sa jëmm di feeñ sa jëflante feeñ say jikko waaye sa njabootu ku la gis xam ne njabootu am murit a ngi nii njabootuk ay taaliba piir ak njabootam ngi nii ñu góor ña ak ñu jigéen ña taxawaay ba nga xam ne moom moo la ci war nga taxawee ko fexe ba móol leen ci façon boo xam ne day nekk tibu murit boo xam ne leer na ne la jamono lu jamono doy doy waar yow góorgóorlu nga ca la nga ca man góorgóorlu la nga ca man lan moo la koy may mooy fexe xool dundu Serigne Touba fexe xool dundu ñi mu yaroon fexe xool li mu bind nga ko ca ndax léegi kat mbir yi dafa dafa dafa doy waar ca ñun suñ classe gi wax yi ñuy neexal dafa bari yu baree bari dañ koy neexal neexal ca fekk ne dëgg la neex na waaye nag kan moo ko moom problème bi dëgg-dëgg mooy duñ wax ne duñ wax ne li ñuy wax amul ñun ñuy wax yëpp dañuy wax ne kuy murit dem aljanna dëgg la ak wér kuy murit doo gis sawara ak wér waaye kan mooy murit problème bi mooy kan mooy murit dëgg-dëgg li ma ta càmbar mooy kan mooy murit sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana yi nee na woon gis fu mu bind lu neex ñu ne ko bari na lool de mun a wax leen mu ci benn bayit ñu ne kullu muridin bi ya yasaadu fa innahu min al ada mubaadu xanaa neex na lool murid bu topp ci man day texe na ci lépp lu koy lor sori na ko sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ne de man day bayit yu bokk ci yi ma gën ndax li sëñ Tuubaa ba wax de bëgg naa ko lool ca ba fii ma toog xam ma ba xam murit ba sëñ Tuubaa soxla moom laa wala di li yitte ji kon li war nekk yitte am murit mooy yu neex yooyu sëñ Tuubaa di wax ak fay murit la mais problème bi mooy kan mooy murit idil muridu laa yuridu abada gayra darrahmani haytu qasada nañ ci natt suñu bopp ku xëy ku nekk di fa nga xëy jëm ndax ngërëmul yàlla nga fay sàkk sëñ Tuubaa neen am murit foo ko séen muy dox ngërëmul yàlla lay wut fu ngërëmul yàlla néew doo ko fa séen nañu seet ba xam ñun ci loolu la nekk wala kun moom loola nag moom ba yu neexee yaa ko moom sëñ bi wax na ko léegi nekk doomi sëñ tubaa doon na sëkk soxna may mun a bu doonee tey nekk murit kay mooy tax loo neex def lu ko neex def koo gën a jege sëñ koo gën a bëgg sëñ koo gën a bokk sëñ Tuubaa koo gën nekk taalib sëñ Tuubaa waaye téewul jamono ju nekk mi ngi bàyyi xel ne sëñ Tuubaa ngi teg bët ci moom rus naa def lu sëñ Tuubaa rusé ci moom sëñ Tuubaa nee na woon man Ahmadou Mbàkke musumaa def lu rus rusloo sama taalibe kon sama taalibe na fexe ba ba mu def lu may rusloo comme doon ci responsabilité la maanaam looy def ak wax xoolal ba xam lii bu sëñ Tuubaa ne woon surtout sa kanam da nga ci continuer wala déet loolu lu mat di bàyyi xel la wax yooyu nag ci ñun léeg-léeg seytaane daf fay jaare seytaane li mu fay jaare bari na lool yow murit nga nga ne waaw mu ne kon yow àjjana nga jëm waaw ki xam ne jàpp ne àjjana jëm danaan man jërut may sonn ci jaamu yàlla yi jërut may sonn ci jaamu yàlla ndax àjjana yow murit nga nga ne waaw mu ne yow doo fa jaar nga ne comme man lu ma a def du ma dem sawara kon def yu garaaw yi garaawut ci man seytaane loolu lay fexe day fexe ba tàqal ak sëñ tubaa loo gën a sàggane jaamu yàlla gën a sori sëñ tubaa loo gën a sax ci ay caaxaan gën a sori sëñ tubaa loolu moom mooy leer sëñ tubaa fawut faluwut caaxaanut caaxaanut ko lépp koo xam daf la koy xemmeem loo ci jàpp ne man ngaa caaxaan mën ngaa def la neex bu yomal xëyaamee yaag sëñ tubaa ah, ah. tubaa daana wax sëñ Malick Ndiaye ci mujju jamono ne ko Malick yéeneel ma waxal ma fere yi ne leen ca gàttan lu ci yéene bi demal ba ca jaba ca marché ba ne leen def la la neex wax la la neex yowmal xiyaam nga am la la neex amul fii fi man Ahmadou Mbacké ko xam fa mu am nag mën na ko faa wut ndax ñaanewu ma leen ko waaye am ma la neex wax la la neex yomal xiyaam nga am la la neex amul fii fi man Ahmadou Mbacké ko xam fa mu am nag mën na ko faa wut ndax ñaanewu ma leen kon nag mbokk yi nañ orienté waat nit ñi bàyyi xel yi nga xam ne léeg-léeg seytaane di ci profité yàqal yu am solo maanaam Sëriñ Tuubaa indi njariñ lu dul jeex njariñul kese la lenn lor néewu ci waaye seytaane xam na ne lu ñu gën a jege Sëriñ Tuubaa gën a bëgg Sëriñ Tuubaa lu ñu gën a gëm Sëriñ Tuubaa lu ñu gën a jëf ndigal Sëriñ Tuubaa bàyyi tereem mu gën a ñàkk ci ñun paal mu gën a ñàkk ci ñun ay gaay yoo xam ne dana am ci ñoom not yu baax moo tax jamono ju day fexe ba lu mu lu mu ñu naatalal lu Sëñ Tuubaa bëggul woon fexe ba lu Sëñ Tuubaa bëggoon mu mu sàgganal la ñu ko ngir bëgg nag am ci ñun lam ci bëgg daa ci jeexale ci baat bu siiw mas naa waxtaan ci benn waxtaan bokk na ci yi nga xam ne seytaan def si jaare mooy Tuubaa ku fi dëkk rek dem àjjana ku dëkk Tuubaa dem àjjana maanaam gaay yu bare bari seenu càggan foofu la Tuubaa laa dëkk dem naa àjjana jeex na nga dégg sëñ tubaa bi na nga ko doon misaale waaye sëñ Touba kay lim li wax dafa leer kan moo dëkk Touba na li damay wax ne bari na ku gàddu néegam di ñëw buñ ko waroon matlabul fawzayni jàngal ko ko day dellu waajuwaat bari waa ne koo xam ne buñ buñ ko ga buñ ko leerloon matlabul fawzayni nan la sëñ Touba bëgg ku dëkkee ak moom dana waajuwaat waaye loolu nag mbir la mu siiw ci ñun loo xam ne dëgg la ku dëkk Touba dem àjjana waaye ku dëkk Touba nag war a dëkk parce que naa ko waxtaan ci benn waxtaan kilifa ga ma nag sëñ bi waxtaan am na solo waaye li ci mat a dindi mooy Touba ku dëkk dem àjjana loolu amul nattali ndax sëriñ Abdul Ahad nee na woon ku nekk ci yéen ne fexe ndax ku yéen sa pujum néeg moo seer noonu ñu baaxoo def rek bu ñu déggee leen su baax waaw ku man de naa man de am naa ko ma bàyyi bañ dal ma jël micro bi ne ko sëñ bi maa yow bokkuñu wax seen blaat bi seen de ku nekk ci yéen sa pujum néeg moo mooy doon sa seere yomal xiyam waxul moo la yu bàjjal de dëkk bii sëñ sañ sanc ngir jaamu yàlla nag kopp koo xam ne puj ba seere na mooy yàlla nga fa doon def foo jëm dëkk bi jaam yàlla tax jaam yàlla képp tax mu sanc ko Sëriñ Tuubaa nee na woon ñaar laa sama dëkk bee di Tuubaa ñaar a tax ma sanc ko daw nit ñi ak daw li ci loxo nit ñi ba ma demee ñaar rek laa fekk muy winde ak ku saawa ba ma nee fa jàng ñaar rek ma fekk ku yàlla rek ñor muy wut yàlla ak ku adduna rek ñor muy mubboo yàlla daal ñaar yi ne kenn jaaxaluma ci ki yàlla ñor dinaa ko womat ba ne ko yàllaa ngi nii ki adduna ñor dinaa ko xëpp ne am na adduna waaye bu yomal xiyaamee lu ma yàlla cër néewoo bari bu ma ñooñ bu ma ba ndax lañ séqoon jox naa ko muy adduna daal ne ku nekk murid bu nekk nag xam nga kan nga ci doon kon nañu góorgóorlu delloosiwaat image yu mel nii jàngataat ko joxewaat jikko yi ndax ñëw ñu ndaw yi delloosiwaat yi ñoo ngi jéglu baax ko salaamaaleykum wa rahmatulah. alxaaji Njaay kon waxtaan baa ngi noonu mel na ni kon bu amee itam solution feeñal nga ko ndax mooy delluwaat njàngaleem Sëriñ Tuubaa rek yàlla na nu yàlla defal dégg ak topp. yàlla na nañu boole ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet wax jaa ngi noonu mooy xaaj bu njëkk